commencé guñ ba léegi bëri commencé guñ des na ñu commencé même si su fekkee teeluñu teeluñu teelu ba yéeg quoi mais des na tuuti pour ñu commencé. doon nekk si fekk si bañ a toog deretu ennemi yi sama kaw dama laa jéem a jiin li ma doon jéem a di fo am naa ko bii diis du ma taw du ma fàtte bu may génn kaala papa xoolal des a fiis du ma toog loo ñeme loo ñeme eh loo ñeme loo ñeme eh loo ñeme loo ñeme eh ya ya loo ñeme ñaak eh eh loo ñeme ñaak eh eh loo ñeme ya loo ñeme ñaak ah I'm not a different problem. I made the different way, catch on Mutano. He's not a separate man. Man, I'm a separate drop again. He's not a big problem. But the apple was a good cabo. Bunny was in his Pinello. Was in his Pinello. Good Rio Caro next year. Fendi Vienna. Fendi Vienna. Do some of that. Yeah, yeah. kala wo keɓeɗi tew yomɓeñi tenede amuñi tew sina rabori ko mbaɓena sini seregi e duuba e duuba ko kasi bawla e wata bunani kaykafe non e liggo def sirabi matama kude hor kimbaɓiyakobadie matafde futan e next year I ain't never give up, yeah, yeah I'm not gonna do these, do it now Do my fuck up, I'm making the guy, pop a hole, there's a cheese too Hey, learn it, learn it, hey Hey, learn it, hey Hey, learn it, hey Yeah, yeah, learn it, yeah Learn it, hey Learn it, learn it, Hello, there, we never look Right there, we never, I'm a friend Then I didn't get on Then said that I'm a good friend Give me before I'm Give me before they soon Don't ever come escort Don't go dash, don't go blur loxo bu tey jogoɗo jogoɗo potok maraɓa laabuji ɗiɗi hon nega wonoto laafire jogal laabuɗo yoɓuma sohlamo pona wona daji so jahwala pona batana semo déjaɓe so ellon ñaari lomo ganama ko ɓeɗen so ga e rewɓe ko ɓeɗi rey ko jomam yaru wut fodde o jelo ndiri jele ceɗmi bees ɗiga nagguba so ceri bet sewo jeema kam sen def fena uddu fay wesh wesh defɓe ñomɗima e defred de seni pop ɗi bamel tek tek seni pop samay maîtresse lañ fiɗfi cowciraɓe ma so pen yama mon guɗe ko dako fen ɗim fi yorto sowdu haade jeen tama gonmi aymo dako fay ɗi so ga tugal ñu gën di jàpp te tugal yi ñu dàq yàggu ñu dëpp ni li lamb la ta e ku mo e ko xati bolo e la jàpp naari ta ta ko dal la e li na def ci la ma ta ma fu te waru ñu jàpp yaa ko bëgg ye ba ta ko dal e ni e nek si yo nek si yo nek si dëgg si bañat ko teratu indi bi sama kaw dama la dama ji li woon noon saagu bii diis du ma daw du ma fàtte bu may génne kaal ba mu xool te sa fii suuf loo ñeme loo ñeme eh loo ñeme déggu ma eh loo ñeme déggu ma eh loo ñeme eh loo ñeme loo ñeme loo ñeme loo ñeme mosoo ko yëngal waay mosoo ko yëngal posal fii eh boy eh lu bees posal lu bees a bees posal eh lu bees posal lu na eh dig doo koy yëngal waay dig doo koy yëngal eh ci kaw ci kaw ci kaw dig doo koy yëngal waay dig doo koy yëngal na posal posal posal posal eh boy lu bees eh lu bees ci kaw ci kaw barada ko yëngal samba ko di do ko yëngal boy barada ko yëngal No, do you want a birth selfie? A birth selfie. A birth selfie. A birth selfie. Lewis, give the boy your good boy. Give the boy. Hey, bust your boy, your good boy. Bust your boy, your good Hey. You should do rock for your good boy. You rock for your good Hey. You should do rock for your good boy. You rock for your good Hey. You don't wait. you bustle. I bustle. Bustle. You bustle. You want you want I bustle. You should be bustle. I got bustle. You should be bustle. I got bustle. Ay, carrado, coyote, boy, bodo, coyote. Merci, merci, merci, merci. waaw di ko ñaanal jàmm kii respiré yàlla na ko yàlla taxawu gën ko dooli sutura champion la yow bul ragal yàlla na maximum de bruit pour Bass s'il vous plaît yeah. yé waaw pour ñu ko seetluwul Marosic bu ngi fii tey Marosic est maximum de bruit pour Marosic Yeah. est-ce que pare ngeen fi wéy ak man ñi pare seen loxo si kaw ma gis tout le monde eh baby yow foofa what a man definitely. Two more. Chico, Chico. Mo xamoon li ma denc waruma def lii non non te waxoo ma lu lii wax ma lu waral ba ñuy bëggante kon ba doonay xale yu ndaw boobu ñu ñaar rek a foogul ni ko pare wuñ woon rek doot bi ay doom nga ma amel ma amel la doot suñu ñaari xol di taw bébé année di dox may daw pour di bonte sa school ni may garder école bi di la salal kaw ba suuf ni ki jàppee ta porté ni ñuy waxee laay gasee suul sama bàmmeelu nopp pour man jigéen ñëpp rafetuñu rafet ba mel ni yow góor yàlla bu ñëw rek tel nga ko baare mu daw man loo budul dee mooy rey sëy nañ tubaab ñetti doom si ñoom ak si yow doo xëy di demande divorce yaa boole ku si bokkul sa lu si yoonam man wala say doom sa jëkkër kaaba laaj la booli foofa eh waroo maa def lii te waxoo ma lii. dee wéet wéet di jooy feneen béy bi logique bee fen dee ba kon di ko benn ñu continuer sëy xaw ma ba xam ndax ak beneen góor di nga bëgg man mi xaw ma ba xam ndax bis samay góor mënoo ma miin ba Fatima mënoo ma miin ba Fatima war na ma ginnaaw dootuma la gis sax eh boo demee dinaa wéet a wéet a wéet a wéet wéet a wéet tout le monde tout le monde wéet a wéet wéet a wéet wéet a wéet over.